jërëjëf mbokk yi li ngeen di gis crème la crème goo xam ni yombalal nit ndax liggéey goo gis dañ koy tëgg ci anam yu sell te wóor nit ki mën ko jëfandikoo ci anam yoo xam ni daanaka mën na kaa dugal ci saagam wala dugal ko ci posetam di ko jëfandikoo ci anam yu sell te wóor mu ànd ak qualité lii lañ ngeen gis mooy crème bio crème goo xam ni daanaka maa ngi ko defaree li nga xam ne moo di uile huile fenugrec xam ngeen huile fenugrec solo bi mu am maa ko ak bi huile xam ngeen solo bi mu am ak graine wi nga xam ne moo di graine dak bi xam ngeen yii yëpp solo bi nga xam ne am nañ ko ci cëru doomu aadama noddanti dundal taxawal yee guddal yaatal loolu yëpp moom mooy solo bi ndax moom moo bindoo ni nu mel am na li nga xam ne moo di kigelia huile la kigelia ñun xam nañ ko de mooy garab bu ñuy tuddee wolof dàmbal am na sungufam ndax yii yëpp gis ngeen ne ñoom seen solo mooy noddanti rax di dolli ñu def ci huile d'olive bio mu daal di ànd ak li nga xam ne moo di karité bio mbokki lii la ñu tëgg nag ci anam yu sell te wóor defar ko defar woo xam ne nit ki mën na koo jël paccal ci loxoom raay su dee jigéen ci sang yi ci fes yi bu dee góor sooy tëdd guddi danga koy maase wu sakanam nga ñoddi maase ñoddi def ko deux fois par jour guddi gi ak bëccëg bi soo ko defee naturel yow si sa bopp di nga sentir ndax lañ ca dokkee mooy huile date bi huile fenugrec huile kigelia huile d'olive ak beurre de karité bio juróom yi moom la ñu tëggee li ni mel képp ku ko soxla ku ne mën nga daal di wéyand ak ñun 77 244 98 05 amul benn effet secondaire ndax la ca nekk yéen ñu ko gën a xam huile fenugrec solo bi moom xam ngeen ko. huile dakpi tàppe ci internet bi mu wax leen njëriñam huile kigelia tàppe leen ci internet bi mu wax leen njariñam ndax huile kigelia boobee mbokki ci la ñuy taxaw moom mooy dàmbal mooy garab ga goo xam ni fii la sutihanoo fii ci dëkk bi sunguf bi baax reen wi baax huile bi baaxati kon gis ngeen lii la ñu boole muy juróomi mbir huile d'olive huile fenugrec huile kigelia carotte ak huile dakpi mbokk yow mi ko bëgg wooteel góor ak jigéen mën nañ ko jëfandikoo 77 244 98 05 77 244 98 05 jaa ngeen jëf mbokk yi. jërëjëf mbokk yi li ngeen di gis.